الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء man la lay cité lay ñaan ñoo xam ci lay cité nek président d'organisation des regroupements des receveurs toutes les lignes ñoo ngi sante yalla bu baax nak du jullu ci sang-sangi Seydina mohammed ñu ngi gëreem ñep ñep ñu fi teewoon ñep bàyyiwuñ kenn chat ba chat goor jigen mak ndaw di ñaan yalla yalla nañ ko fekk ay at yu bëré bëré bëré bëré sa barki ci barki Seydina mohammed defoon nañ ko daw jéeg fekkee ko def ko daw fekkee ko kon day ñaan yalla yalla nga gëna gën ñi fi nekkoon te nekkatu fi yàlla na leen yàlla yërëm xaarin àjjana di ñaanal suñu mbokk receveur 87 bi génn àdduna fan yi passé yàlla na ko yàlla yërëm xaarin ko àjjana dayante ak malaaka yërmante waaw parce xam naa ko baax booy bi yaru woon booy bi kulle woon waaw ñu sant ñëpp waaw regroupement bi nag si social lay dox képp ko xam regroupement bi social lay dox ñun instant bii nii ubbi nañ suñuy bunt ñëpp képp ku ci bëgg a bokk rece nekk receveur boo ñëwee boo gisee gars yi da ñëw bokk ñëw ñu yaatal toog waxtaan ñu xam ni carrément ñu ndogu bi pour ngistal defuñu ko pour gis lépp dañu ko def te yàlla rek tax ndax nit ki woor suba ngoon nga yëkkati benn doomu tànnama jox ko mu lekk rek loolu sant yàlla te tiyaaba la ah ñi ñaan nag ku dégg suñu voix nga gis suñu vidéo ñi ngi ñaan teg ñu loxo sa ay ndaw lañ teel a xëy guddee wàcc lañ xam xamuñu leen loolu teel a xëy guddee wàcc dans suñu dool dimbali suñu wéyju waaw ñi ubbil na ñëpp suñu buntu nag di santaat ñëpp commencé an si président bi ba ki ndaw ci regroupement yi ne sant la gërëm di gërëm suñu jigéen ñi parce que soo ba ngi fi ki soo ba léegi ñu ngi sant leen gërëm di sant góor yàlla yëpp waaw mataa yi métam ñu sant yi mu jógee fu sori ñoo def montage ñu lay sant baax a baax di la gërëm jaajëf ma ko baax baax salaamaaleykum waa di nuyu gaa yëpp euh, di jaajëfal Maxu Pro franchement si initiative bi mu def ñëw jël li nga xamante ni moo di troisième édition wu euh, regroupement des receveurs ñoom à chaque fois ñuy distribuer li nga xamante ni moo di ndog ñuy rendre hommage nag ki nga xamante ni moo di Kéba ak euh, bépp képp ki nga xamante ni dafa làqu si réseau Aftu bi regroupement des receveurs de tous les lignes li ko tax a jóg mooy. paix maanaam dañoo jóg pour jàppale képp ki nga xamante ni moo di receveur si réseau bi te ñun tamit am nañ benn objectif boo xamante ni moo di lépp lu ñu tax a jóg si côté réseau bi moo di maanaam def lépp suñu kéemtulaay kattan ba nga xamante ni receveur bi dina nekk si ay conditions yi bien ñuy dox na si li nga xamante ni moo di euh, ay ndogu di joxe ay ndogu bu fekkee ni wàllu màggal ñuy def ay sabar maanaam ci lépp lu muy dox daal mooy maanaam dimbali jaamu euh, jaamu yàlla bi jox ko mu lekk. jox ko mu naan tey nag bi mooy troisième édition bi franchement ñu koy euh, rafetlu dugg nañ si alhamdulilah bisimilah rahmaani rahim di ñaan yàlla ñu pare si si euh, alhamdulilah rabbil alamin voilà. partenaire yi boo xoolee si côté partenaire yi ñu ngi remercier ki nga xamante ne moo di Maxu Pro waaw borom borom borom borom euh, bi. ki nga xamante ne boo bëggee li nga xamante ne moo di ay ay aztèque <laughs> comprendre nga. voilà suñu partenaire yi nag waa kii la waa Captrans ak ñi nga xamante ni moo di moo di afti ak euh, en même temps tamit ñun dañoo créer benn affaire boo xamante ni ci la ñuy liggéey muy regroupement bi des receveurs bi tamit partenaire la en même temps moom la dafa nekk regroupement bi mais tamit partenaire la ci biir regroupement bi voilà di jaajëfal ñëpp di kontaan si ñëpp franchement ñu ngi remercier ñëpp. waaw ko ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal waa regroupement bi waa regroupement bi nag yàgg nañ ko créé mais dépp bañ ko créé ba tey dañuy def ay ndogu waa cette année ci tamit ñu def ko comme niñ ko daan defee muy defe naa troisième année bi troisième édition bi ñu ko defe ko fii ci sëñ Assane regroupement bi nag euh, receveur yëpp la concerné tous les lignes un ba euh, soixante quatre-vingt-onze un 91 defe naa waaw salaamaaleykum sama gaa yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar waaw di rafetlu seen journée bi ngeen organisé muy journée ndogu bi euh, di leen sant di leen gërëm te yaakaar naa ni liggéeykat lii rek la mën ak moroomu liggéeykat te yaakaar naa ni ñun ñoo mën a jàppalante suñu biir te lii ngeen def geste bu noble la. te yaakaar naa ne daaw ñëwoon nañ fi te gis nañ ni yaa innovation boo xam ne yéen a ngi koy yéen a ngi koy yéen a ngi koy te xool nañu ba ñuy dem euh, ba ngeen di départ daaw am na lu ñu waxtaanoon te gis naa ni jëfe ngeen ko ci année bi ngeen def ci une réussite kon yaakaar naa ne activités yi lu baax la ci luy doxal association donc comme looy wax rek lii dafa mel ni benn genre sociale bi ngeen di def chaque année maanaam. Euh, ni ngeen koy defee nii ci la leen yàlla di leen jàppale teewul nag dina am yenn activités yoo xam ne moom ngeen di mëne ngeen mën a avancer ngeen mën a avancer mais ne loolu nu koy def mooy union ngeen booloo nekk benn bool ci xam ne lii ngeen di def gëm-gëm la gëm-gëm la te aussi tamit ku nekk xam ne nii lii su doxee ñun la doxal yaakaar naa ne tey ji nga liggéey nekk ci société liggéey pendant des années réaliser woo dara su boobaa dañ ne kii lan moo nekkoon liggéeyam tey jii li ngeen di sumb nii mun ngeen dem ba tey jii ñi nekkoon ci gise bi ngeen am yeneen activité yoo xam ne te tey association bi moo ko moomal boppam kon donc ñun ñaanuñu yàlla nekk ci gise bi tout chaque jour chaque jour chaque jour ñaan nañ yàlla am beneen bunt boo xam ni dañuy xam ne ni lii tey jii ci gise yi lañ ko amee moo tax tey jii société bi taxaw kon donc loolu lu koy def fula ak fayda donc euh, keroog maa ngi gis euh, presse yi envoyé seen carte de membre bi ma ne ko lii mooy mooy mooy début association association moom mooy carte de membre kii xam ne moo yor carte de am na droit wax ci biir ci biir association bi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax eh, damay jël nuyoo bi rek ci ci président Moussa Diallo di jàppal ma jàpp. nuyu aussi suma collègue bi toog mi Moussa ñaam donc ñu teewal fii association ASTMB donc euh, ñu ñëw ci journée boo xam ne nii journée joxe ndogu la jóge ci receveurs yi mu nekk nag loo xam ne nii dañ ci am mbégte bu baax pour teewaat parce que ndëgëni daaw ñuy fi woon am na ñoo xam ne nii ren fekke wuñ ko ñu leen di ñaanal yàlla yàlla xare leen aljana wax rek li ngeen ci yotu ba di def yalla na ngeen ci am ay te am nañ ci yaakar ndax euh, dajalo def lu bax jëmele ko ci jaamu yalla itam aussi lolu lu bax la mais nak mënuñu dem te sant ñu receveur parce que ñu nak yeen ñu ñoo bok tali bi ñun ay contrôleur lañ yeen ay receveur ngeen donc euh, di wax rek ne ñun ñoo bok nday ñoo bok baye tey liggéey bi ñu bokk muy aftu kenn mënut a dem bàyyi ci sa morom. asalaamaaleykum gars yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen fay di leen ziar di jiita ci nuyoo bi nag suñu président Ndiasse Fall ak secrétaire général bi di Seex di nuyu contrôle yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu di jiital nuyoo bi président bi di Moussa jàll bi nga xam ne moo jiite jàppal ma jàpp bu contrôle bi ak euh, secrétaire bi sëñ Baara. ak Moussa ñu ngi leen di bu baax di leen fay di leen jaar te loo xam ne defoon nañ ko ren defaat ko daaw li ñu defoon ren defaat ko daaw kon dañuy ñaan yàlla mu doon ay ati at te parce que dafa am leen loo xamante ni dangeen koo dugal suñu bokk te li ngeen dugal suñu bopp ba léegi moom la ñuy doxee ndax yéen ñu jiitu si métier bi te yéen a ngi ñu won yoon boo xamante bu leen neexoon te ngeen suñu rakk lañ mais li ñu séq moom mooy oto yi rek tali bi lañ séq te bu leen neexoon ngeen ne duñ ko def ndax xamuñ leen xamuñ leen ku nekk sa liggéey ngay def bos pare pare si mais defoo leen ko ndax tey dem ngeen ba receveur amutul sañ-sañ njublañ ndax am na kanam yoo xamal tey buñ la def tegee fenn fi am cër buñ la jox amootoo sañ-sañ def lenn luñ lay xeebee te yéen yéen ko génn si receveur yu bëri receveur xeexatul géntul gisee xeex ndax parce que yéen yéen yéen ko génn si receveur yi ndax chaque jour li ngeen di def mooy conseiller receveur boo duggee si otom conseiller ko tamit wax ko li mu koy wax ba client bi dégg xam ne kii kon fii mu nekk place liggéeyam kaay mooy bureau li ko war moom mooy.